présentation dañ nan ñun ñoy wa réseau des jeunes pour le développement manam ndaw ñi nga xamanteni ñoo boot ci ginnaaw Cheikh Abdou Bali ngir and ak mom liggéey ci biir dëkk bi façon politique bo xamanteni bu wuute ak bi fi euh, faral di gis la lepp jëm ci wormal dëkk bi. ñu dëgmal nak ben euh, événement bo xamanteni bu am solo la muy ben conférence bu ñu wara def ci mbaru daru Xuddoos ba le 23 bi di ñëw di euh, yamook mercredi à partir de 16h ñu ci wo nak ñi nga xamanteni ñoy ndaw yi dëkk bi ndaw département bi. jeunesse bi nga xamanteni ñom ñoo engagé wu def politique mo xam ñu bokk APR mo xam ñu bokk ci yeneen parti politique yi euh, ñu fassiyene ci nak développer ay thème yu am solo ci walu conférence yi mën ñu tudd ci thème yoy bu ñëk bi nga xamanteni ni oustaz Taïb Socé koy def muy euh, l'islam la jeunesse et la politique euh, bu ñu waxé lool nak xel yu bari dinañ dem ci ndaw té ndaw moy kan moy ki nga xamanteni mo wara jariñ dëkk bi ëlëk ndaw lool nak dañ ko wara former ci niñ koy former moy ci walu vertu ci wàllu valeur te mënuñu wax vertu ak valeur te jël wuñ ko ci lislaam donc mu doon thème boo xamante ni thème bu am solo la oustaz Tayib Socé war koo def bu ñu paree tam am ñu ci war a àddu am itam beneen thème bu am solo boo xamante ni sëñ Abo Mbacké mu sëñ am sëñ Fallou moo ko war def muy euh, la politique aux égards de la ville sainte de Touba maanaam politique boo xamante ni dañ koy def wormal dëkk bi ndax ku xam Cheikh Abdou Bali xam ne bi mu dalee def politique ba léegi ci loolu la mës a nekk maanaam di def politique boo xamante ni doo xaste doo wax lu ñaaw doo saaga maanaam boole kook noppi te doo tontonte li nga ci euh, bëgg lépp mooy résultat bu positif. ñu bëgg nag def conférence boo xamante ni dina doon benn appel fort ci jeunesse bi ci regroupement des familles. ci association yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ay responsable ay responsable ñu bàyyi xel ci wormaay dëkk bi bàyyi xel ne tamit dañoo war def beneen façon politique boo xamante bokkul ak bi nga xam ne moom la ñuy faral di gis yeneen dëkk yi ndax Touba dafa wutee yeneen dëkk yi xam naa duñu sori lool ci euh, mbir moom dañuy bàyyi ki nga xamante ni mooy sëñ Imam Sall mu mi nga xamante ni mooy jiite commission scientifique bi mu indi ay leeral ci wàllu déroulement di ñaaral sëriñ Mouhamadul muntaha yàlla may ko katan ak wér ba limu bëgg a umma islamique mo ak jam ñi ngi woté ci woté bo xamné réseau pour les jeunes de développement ñokoy def fi ci Touba Mbacké ànd def ben bop di jàppale Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké ibnu Serigne Cheikh gende Fatma ci ben conférence bo xamné ñi ngi koy amal le 23 bi ñu jëm euh conférence bi nak ñi ngi ciy woo képp ku yeewoo ci biir Touba eh, di nitu diine di nitu lislaam di woo chefs religieux yi di woo imaam yi ak arabisants yi ak ñëpp ñi nga xam ne njabootuk Serigne Touba lañ muy ñi nga xam ne sët yi lañ ak seex yi ak Baye Fall yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo ci dëkk bi te Serigne Touba ñor leen ak dëkk bi ñi ngi leen di woo ci conférence boobu muy le 23 bi ñu jëm ci mbaarum Daaru Xuddoos à partir de 16h wala 15h. Euh, thèmes yi nag comme niñ ko waxee ñu ngi war a waxtaan ci euh, l'islam et la jeunesse ak islam ak politique l'islam ak politique li ñu tuddee as siyaasatul islamiya waaye dinañ fa waxtaane beneen thème te mooy wor may Touba wor may Touba ci lan ci képp koo xam ne da nga nekk Touba di yëngu ci loo mën di yëngu nga teg ko ci njàngaleem Serigne Touba kii développé thème boobu mooy Serigne Abo Mbacké beneen thème bi mooy Oustaz Sayib Socé moo koy développé ak yeneen intervenant yi nga xam ne dinañ fa teew waaye nag ñi ngi ci woo ñëpp di wane ne te loolu ñuy def nag <clears throat> ñu ngi koy def ngir lan képp ku yeewoo Touba nga xam ne Touba dëkk la boo xam ne àddina bi yëpp dañ ko teg ba di ko roy Serigne Touba jàngale ci téere bu ñuy wax mat Matlabul Fawzayni euh, wajxalu da'ban maskana ta'allumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi Serigne Touba mi ngi wax nii mi ngi ñaan yàlla ci dëkk bii di Touba mu nekk dëkk boo xamante ni lépp lu waay di sàkku ci wàllu xam-xam ci àddina soo ñëwee fekk ko fi waaye lépp lu di sàkku itam leneen lu du sax soo ñëwee fekk ko fi bëgg jeunesse bi yeewoo ci biir Touba ñu xam ne ñun ay doomu sëtu Serigne Touba lañ sëtu Serigne Touba lañ yoo xam ne Serigne Touba moo ñaan a ne maa ngi ñaan yàlla moo may ma ay sët yoo xam ne yàlla nañ ma taxaw ci dëkk bi ëllëg lu jëm ci wàllu liggéey ak jàng ak développement loolu la naan waxab la naan suriyatan tuddimu alhamala saalih ya xadim zuriyatan tayyibatu jaddiju ndax jënd biir Moustapha te tayit woote boobu nag la ñuy woo ñëpp ñu ñëw ñi ngi ci woo ñëpp ñi nga xamante ni bii ñi ngi bokk ci parti pouvoir di woo ñëpp ñi nga xamante ni bi bokkuñu itam sax ci pouvoir bi muy ñi nga xam ne ñooy opposition bi parce que lii dafa nekk loo xam ne ku yewoo Touba rek yitteel na la concerné la na ndax liñ ciy mooy xam-xam ak lu jëm ci njàngalem Serigne Touba ak tarbiya ak yar bi nga xamante ne bii war nañ koo mën a nekkee ci dëkk bi ba jox ko war ma boo xam ne addina bi yëpp danañ gën a naw Touba danañ fonk Touba ngir li nga xam ne moom la Serigne Touba jàngale ci téeréem yooyu loolu nag moo tax ñi ngi sant bu baax nag mboolem réseau bi nga xam ne ñoo ko taxawal euh, fas yéene liggéey ci dëkk bi liggéey boo xamante ni fasuñ ko yemale fii waaye day liggéey boo xamante ne day gunti ba faw kon réseau boobu yàlla na yàlla taxawul leen ñu wane beneen xar kanam bu beex beneen xar kanam boo xamante ni ku yeewoo Touba ak ku yeewoo soo xoolee réseau bi danga xam ne ñii kat ay ndaw lañ yoo xam ne tegu nañ fi Serigne Touba doon jàngale li Serigne Touba bëggoon ñu nekk ci yoon woowu kon yàlla nañu ko yàlla defal ba ñu àgg ci jàmm muy le 23 bii ñu jëm ñu ngi ci woo ñëpp bu ko kenn tardé bu ne ko ñëpp bàyyi xel. Mbacké xalif général des Mourides ah ñun ñi nga xam ni xàmmee nañ ñu ci langue politique gi woote bi réseau. bi nga xamni moy ndaw yi di suqali dekk bi woote le 23 janvier ci mbarum daru Xuddoos mu nek une conférence religieuse mu am si ñaari thèmes yo xamni bëgg nañ ko développer et aussi ñëpp xam nañ ni fi réew mi toll dañu tollu ci tension bo xamni il faut que nit ñi and ak dal and ak yar and ak teggin am retenue am responsabilité ci siège bobu la ndaw ñi woote woo dëkk bi yëpp sans coloration politique parce que nag lu nekk mën na xew feneen waaye Touba dafa am nuñ fi war a doxe te li ñu gis ci réseau sociaux yi li ñu gis ci place publique yi li ñu gis ci mbedd mi acteurs politiques yi di ko doxal bu continuer wax dëgg yàlla ba ñuy def alerte dafay weesu moo tax nag ñu ngi woo ñëpp amul pouvoir amul opposition képp ku dégg suñu kàddu wala nga seetaan suñu video jàppal ni mooy sag woote lañ ca bëgg a waxtaanee wax nañ ko léegi ci ay thèmes politique lislaam ak jeunesse et ñëpp xam nañ ni jeunesse mooy avenir réew mi te dañoo ni dëkk bu la am une jeunesse saine jàppal ni moom moo la gën a am un avenir prometteur et Touba c'est une ville espéciale dëkk la boo xam ni war nañu xoolaat doxin biñ fiy dox ci politique. loolu moo waral ndaw yi nga xam ni dañu nekk ay eh, dañuy yëngu ci wàllu développement ba pare nag am gis-gis ci ginnaaw Cheikh Abdou woo ñëpp pour ñu waxtaan avant ñuy dugg ci campagne bi wax dëgg yàlla ñëpp ànd ak dal ànd ak yar ñu xam ni kat fa ñu jëm ci ay élection xëccoo rek la waaye bu jeexee ñun ñëpp ñooy bokkaat Sénégal te suñu Sénégal gi jàmm moo ko lal jàmm lañuy ñaan mu sax fi ñu ngi woo étudiant ñu ngi woo chauffeur ñu ngi wo apprenti ñu ngi wo organisation de famille bayu ñu kenn képp koo xam ni dëkk bi ñor na la ngay ndaw surtout ñu ngi lay woo si mbaarum daaru xuddoos bi le 23 janvier à partir de 16h oustaz Tayib Socé dina fa waxtaan Serigne euh, Abo Mbacke mu Serigne euh, mu Serigne Mourtala mu Serigne fallu dina fa waxtaan kilifa yeneen diine yu bëri dinañ fa waxtaan ñu ngi woo ñëpp jërë ngeen jëf.